waaw Ousmane Niang la euh, di président mouvement Eli Sénégal également bokk Benno Bokk Yaakaar bokk membre APR voilà di ki nga xam ne je suis un admirateur je suis un admirateur du ministre maire Amadou Mansour Fay. waaw tey daje bi leen rek la mooy dafa am ay ndaw yu ma seet si ne ma dañu bëggoon ñun ñu ànd organiser benn tournoi sargal Mansour Fay. biñ ma ko vraiment man leen loolu du ma sax hésité dinañ ci def suñu doole def suñu énergie parce que man su ma dégg su ma ñu ne Mansour Fay. rek. dañuy tàqalu suñu soxla parce militant donc lépp li nga jëm ci Mansour Faye dañ ciy taxaw dañ ciy xar suñu tànk tubéy te vraiment lima gëna neex ci tournoi bi moy dañuy ñëw tamit pour rendre hommage à feu Boulou Ablaye Diaw Boulou muy ki nga xam football na 52 ans mom rek ko defa gum si jouru Ndar vraiment mu mérité ko te famille tamit ñëw gis nga sank seen ay joy seen ay rongañ dañ ñu jooyloo parce que vraiment dafa doon lu neex ba pare lima ci gëna neex moy actuellement li nga xam contexte politique bi violence bi nga xam ne mu ngi am ñuy taal ay Auchan di taal ay dëkk taaluñu ben taaluñu leneen maanaam ndar yàquñu fi leen loo xam mais dañ ñëw ne dañuy sargal le maire Mansour Faye donc c'est un message important beneen mooy gisee jeunes yi ñu booloo tey mu ngi mel ni finaalu nawetaan lañ nekk ndax jeunes vraiment bëgg nañu defar mais dañu amul fan la ñuy jaar mais bañ ñëwee ne ma yow ndaw yow gëm nañ la dañoo bëgg ànd ak yow pour liggéey ndar vraiment dama si am contentement donc lépp dañu koy delloo ci Mansour Faye mi xam ne moo ñu wan yoon bi moo ñu wan nan la ñuy

ñi nga xam ne ñoom ñooy yabar jeunesse bi ñuy yàq yabaluñ seen ay doom seen ay doom ñu ngi jàngi ji feneen mais tey jeunesse bi def nañ ba commencé yeewu loolu ay jeunesse bi taal ay maire ndar ñooñu du jeunesse bi de jeunesse bi luñ gëm mooy sport ñu gëm mooy jàng tey bu ngeen gise si concours général yi bu ngeen gisee tey si baccalauréat yi bu ngeen gisee tey si BFEM yi ngeen xam ne doomu ndar jàng la xam doomu ndar xamul yàq doomu ndar xamul saccage donc kon ñun xam nañ lu ñu am moo tax Mansour ne dem leen ngeen jege jeunesse bi dem leen ngeen waxtaan ak parce que jeunesse bi meluñu ni ñu mel mais dañoo jaxase seen xel waxoon naka bee passé ñu mere ko ñu na enseignant yi ñoo jaxase xel yi mais Mansour dafa dem ba comprendre né jeunesse bi dañoo perte de père te repère bob man en tant que jeune je me sers comme exemple je me sers comme tey jii seen idole bo xam ne damay nekk ci lu deug ba ñoom ñu mëna ñoo taxaw mais vraiment jeunesse Ndar jeunesse bu concentré lañ jeunesse bu bëgg dëkkam lañ jeunesse bu nangoo liggéey na yeneen activité yoo xam ne ñoo ngi jeunesse daañu ci ànd comme li si demee si ay sectoriel ñu ngi koy waaj ay consultation gratuite ñu koy wax kon di leen remercier di wax ne jeunesse bi ay exemple si yeneen dëkk yi kon yeneen dëkk yi nañu roy si jeunesse bi waaw parce que jeunesse bi comme ndar li mu am beneen dëkk amu ko ñun am nañu gaz am nañu gaz fii nii 450 milliards et mètres cubes moo lay war a si géej gi te ñu gis na tamit géej gii gaz bi mu ngi koy xaw a lekk si ay jën kon suñu jeunes yi dañ la war gën a jàppale formé wu leen loolu c'est un cri de cœur nañ gën a ay former parce que jeunesse tamit li mu la jeunes étudiant bëgg di il faut ñu former il faut ñu nous ils il faut nous ñu may leen ay bourse bourse dans centres vraiment c'est dañ ko def parce que nous daf ñoo yónni mais si vous waxtaan ak jeunesse il faut ñu indi ko dara di wax ne jeunes nañu patient jeunes nañu Sénégal bii nii ñuy liggéey pour moi mais pour la génération future bi lañ koy en 2016, le 2016 code pétrolier président de jël li nga 10% pour la génération future solo la kon président mu ngi bàyyi xel ndaw ñi président leppam leppam moy ndaw ñi masou fay leppam leppam moy ndaw ñi bo xolé tay tournoi nawetaan lepp lo gis masou fay di ci dugal loxoom tay bo xolé assainissement yi rek infrastructure sportive yi nga xamne lepp lepp masou fay mu ci japp donc vraiment di inviter wa jeunesse bi jeunesse la mëna inviter parce que ñom ñoma ma li ñoma def parrain vraiment wa candidature masou jot nañ ci euh, weewu béy sa candidature a été recalé mais ñun dañuy wax ne tay Mansour Faye ñun mooy suñu candidat tey mooy suñu candidat ëllëg moom bu fekkee nekkul président de la République ñun Mansour Faye lañu xam parce que li nga xam ne bi mu nekkee maire ba léegi tey Mansour Faye bi nekkee mair ba léegi 2011 ba léegi tey gisuñu li mu fi def beneen maire def ko fi. tey Ablaye Wade su PDS Saint-Louis amoon na plus de neuf ministres mais li neuf ministres yooyu doon def yëpp Mansour Faye moom képp mu ngi koy def tey ñun ñu ngi siy gis suñu bopp kon buy waa Liyane ñun Mansour Faye xam mais nag dañu am ki nga xam ne mooy suñu le président de la république te Mansour day wax ne moom benn kilifa la am le président de la république kon ñun tamit ñun lu Mansour wax lañu wax mais mu féké am nañu lu nga xamné ñun denc lañ ko suñu xol moy Mansour Faye nek président de la république ndax tay enjeu économique bi ci ndar la nek kon ki nga xamné ne moo koy yore te président boo jëlee PSE mënoo ko dindi té dindi woo réalisation Mansour Faye té biñ né terre bi dana daw wala du daw Mansour Faye moko ko ñëw dawal té bo jëlé li nga xamné ne nord ville plus de 8 milliards def na fa pour ñu xolli xolliwaat tali yi pour ñu assainiraat ko bo démé sànc ba gox mbaaj so démé tey mën course tali yi bési nga dem jaminar